ca xaar leen àjjana yi fa daw seer ci barke Seexul Xadim amiin amiin ah, yëf yi de xay na am nañ ci ñaar côté yëpp am nañ ci am nañ ci xalaat ayca bismillah waaw bi ci njëkk mooy ñi nga xam ne suñu borom dogal nañu ñuy ñàkk seen bakkan ci ci ci accident yi mhm. a ah, ñun de wax dëgg yàlla état bi ñoom ñoo ñuy defal visite technique mhm. te visite technique yi nga xamante ne ñoom ñu ngi def am na ci ñoo xam ne de danaan def musique publique te seen oto du dem. ah loolu doy na war de. am na ci am na ci ñoo xam ne ñu ngi def musique publique te seen oto dem. loolu doy na war de. man de wax dëgg yàlla. Hmm. yaakaar naa nit bu feebaree. maanaam ñu jël pièce d'identité am yóbbu ko hôpital naan leen waa ji nii la tudd ni la sant. Hmm. ñu ne ko anam mu ñu ne ma nga ca kër ga yaakaar naa feebar ba moom dee ko ca ca dee lay mujj waaye du faju <laughs> sëñ bi li nga wax doy na waar de. gars yi dañuy am dem. sëñ bi réew mi li ci xew ku la ko wax loxo dina dem gémmiñ jiw tibb hmm. Sénégal lijjanti lañ ko def amatu ci loo xamante ne nii li li lu nit ñi teg fa ñu war a teg la hmm. la ko waral mooy njiit ya xam ne ñoom ñoo jiite te ñu dénk leen responsabilité yooyu hmm. xam nga du lépp Macky Sall la du lépp Macky Sall la man équipe nationale boo defoon sa classement toog ci bi naan di joxoñ suuri naan defal lee defal lee jour bi nekk ci biir terrain bi taayee sonal na aw yaramam la ko fa kot si ba tegee du ko def mhm. kon ña xam ne ñoom la Macky Sall samp kenn ku ci nekk wàll woon na dénk mhm. wàll googu yow yaay xool sa nga doxe ci nam war a doxe mhm. ndax bu fekkee ne tey oto daf lay romb yow oto bi da nga jilante oto mu jéng ñaata ñaata takk da lay romb ci ci tali bi oto bu jógee fi war a dem Dakar ñaata gendarme wala ñaata policier lay romb ci kaw tali bi fi bari na bari na. ñoom lan moo leen intéressé mooy andi soo kayit kayit wa sax lijjantiwuñ ko mooy mille francs yi ñu jël def ko seen poche moo leen intéressé mais oto bi weng naag pono bi wàññeeku naag loolu lijjantiwuñ ko oto bi màgg na ñoom lijjantiwuñ loolu. Mhm. te gis nga gis na gis nga a bakkan dafa foor gis nga Sénégal instant bi ma xanaa nit fi ne nit amatul sécurité fi ne Sénégal fi ne dëkk bi wóoratul te bu njëkk boo déggee ko faatu bala nga koo déggaat yàllaa xam léegi nag maam dañ lay tàggee nit léegi nga takk ba mu dëgër dem denc ñëw toog di xool nekk dellu ca la nga nekkoon balaa gi ñoo naan la diw faatuwaat na. ay doy te taxut taxut ñu bari ñu bàyyi xel benn yoon ana lii lan moo ko waral accident yi buñ yàggut dong côté Louga googu accident bu métti bi fa amoon ana machine yi gars yi jël ah moom xanaa téyeer jël seen i a jaaxal parce que xam nga dañ ne bus bi. 60 places la def waaye. li ñu lim ci ay nit ëpp na fuuf ndax nee nañ am nañ juróom fukk yoo xamante ne am nañ gaañu gaañu ak ñaar fukk ak yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. waaw. léegi te ñoom donc 70 personnes te 60 places moom moo nekk ci biir. waaw léegi wala wala wala ñoom di ban fan départ ak fañ war a arrivé xanaa diggante boobu amul benn takk der bu fene ah ñun ana suñu takk yu bëri yi nga xam ne moom la ñuy xëpp Ousmane Sonko ci eh, bu dara amee ñuy génn ba mel maanaam ba nga xam ne ñoom soo xool rek borom mbaxana ngay seen ñooñu xanaa ñoom ñoom ñoom lan mooy seen seen seen liggéey transport bi chaque jour bu scandale amee transporteur yi gerew ñaari fan ñaari fan ñetti fan ñu ñaan njekk ñu dellu ca lañ nekkoon ay bakkan deyaat mesures yi may jël nañ koy appliqué chauffeur bu fi yeb loo fi wóot a yeb ñu teg lay daan mhm. chauffeur bu fi dawal lu wóot dawal romb ab takk der maanaam mu arrêté la gis na ne li ngay dawee jaaduwut man d'accord naa man Sa Touba nga rendre compte yow ndax ay bakkan nga yeb yóbbu ay xar de fii boo jënd woon daral jënd sa fukki xar yeb ko ci yeb ko ci oto oto boobu di ko dawal ndànk ndax bu xar yaay bu oto bay këpp say xar di dee te ay nit ñoo ëpp ay nit ñoo ëpp ay ak jur ko ndax lu wala xadd karab naa bànne aadama lu yàlla bind doomu aadama ko ci gënal léegi gars yi dañuy yëpp ay xar mel ni ko ay mbóot état bi ñoom bu fekkee wax dëgg yàlla jom seen liggéey yi diñu war a mën a ci kanamu sénégalais yi mooy buñ toogee pàcc par pàcc ñuy wax ñoom lan lañ ci def mhm. accident yi day wàññeeku accident yi day yokku wàññeeku day yokku mhm. i yi ñi jaar ci Barça wala Barsaq wàññeeku day gën a yokku. ah vraiment ñoom bi ñu fi ñëw di toog dañ doon wax naan dañuy xeex wàllum maanaam de maanaam ni gars yi fit dem dañ koy xeex bokk na ci seen programme ñoom. Mm-hmm. léegi imaginer tey sëñ bi euh, euh, gis nga ci biir gi laay ñëw am na ci responsabilité boo xam ne état bi la. Mm-hmm. am na ci responsabilité boo xam ne maanaam parents yi la am na ci responsabilité bo boo xam ne tamit ci nit ki lay doon. Mm-hmm. bi nga xam ne état bi la. waa lan mooy ndeyu état mënta waxtaan ak ñi nga xamante ni nii ñooy bitim réew fi nga xam ne fa la yi ëpp lu ñuy waaxu di fa jëm ñu waxtaan ci wàllum visa mi ñu mën koo oyofal te war koo yombalal gone yi ah, ndax boo deman ni boo deman Saly wala nga dem maam territoire yi nga xam ne territoire yu luxe yi lu normal tubaab yaa fa fees jal bu ñu nu leen di neex la ñuy ñëwee amul visa Sénégal ko am paas ñëw Sénégal yor la xaalis am paas booy am paas di ñëw suñ do su fii da ngay dem fa ñuy eh, ñaanee visa ñaata sénégalais ngay fekk ñu ram fa waaye est-ce xaalis bi ñu encaissé sénégalais bi est-ce que eh, bi amul amul lam doon ñaan est xaalis ba dañ ko ko remboursé ñaata nit la ñuy xëy jël te ñooñu ñaata nit ñoo ci échec mm-hmm. ña échec seen xaalis fan lay dugg loolu sàcc laa ko tuddee man saa Touba <laughs> waaw da ñaan si visa il faut il am lañ la laaj lañ la laaj dama ne ndax bu fekkee ne amoo mayuñu la visa est-ce que yow la nga joxante dañ la ko delloo mhm. bu dee duñ la ko delloo sàcc laa ko ci man ba keroog ma gis leneen léegi nag bu fekkee ne tey responsabilité bi nga xam ne ci borom maam ci kilifa yi góor ñi paaraay góor yeeg paaraay jigéen ñi wërsëg yemut lu ci sëñ mbay jaxate ne lu ci ñëwam jotugut loo ñoddi ñoddi bu ñëw waaye loo xam ne xas na ba ñëw loo dàq dàq du dem mhm. gis nga li nga xam ne waragoo ko am. Mhm. boo doon dem Barça di daw ak ñëw doo ko jot jot. vraiment waaye waxtu suñ borom dogalee mu ñëw bu àdduna bépp dug jógoon di la ko xañ du tax nga am du tee ko. Mhm. waaye loo wot am bu àdduna bépp jógoon naan na nga ko am te yàlla namu ko doo ko am. Mhm. wërsëgu maanaam euh, euh, doomi julit piir bu ko jant natu tiimee na ubbi néegu muñ te dugg ci te xam na yàllaay séddale wërsëgu àdduna bul la ku sa numéro génn nga jot ci ku sol dàllu baax te àggoo baax yekk rek kay tee nga yegg yàkkamti ñàkk a maandu gis sa bopp boo yàkkamtee ñàkk ñu muñ boo maanduut ñàkk ñu maandu boo gisee sa bopp ñàkk ñu am fayda barke boo ko rañaane mu jot la wërsëg boo ko forcé mu dëpp mhm. dafa am loo xam ne nit ki muyut boppam nit bu muyut boppam nag def attention bu baax a baax ci àddunaam mhm. am na ñoo xam ne dañoo judd rek dee am na ñoo xam ne juddu wuñu am na ñoo xam ne dinañ dund ba dee duñ mhm. nekk nii ay gone ndaw lañ liggéey ak la ñuy am sax moo ëpp li liggéey ci aw ñaq. Mhm. léegi bu fekkee ne tey man am saa Tuubaa damaa nekkoon ci kër nekk sama mag wala ma nekk sama nawle ci biir kër gi. Mhm. ñu naan waa doomi diw ji de daanaka kër gi lu si dee ko rey moom da xarum tabaski daaw mi nangam la woon nangam bu facture courant bi ñu jox ku nga dem naan nga fay ko. booy di te nga ah comme yow mënoo dara lu fay a fay di am yenn di am yenn maanaam di am yenn gënalante goo xam ne ci biir ci biir famille bi mm-hmm. nga dem ba yow bopp da ngay gis sa bopp da ngay dem ba ne man sama téeméeri xel duutuma mayeeti sama ngor mayeetuma ma toog ci kër gi ñu jël sama mag wala ñu jël sama rek di ko teg sama kaw mm-hmm. bu téléphone bi yirim tirmee ñu ah sol noonu ndax comme yow defoo dara nangu liggéey yow koy yaa ngi noonu rek d'accord merci beaucoup te am xanaa yaa ngi liggéey waaye yaa amul wërsëg mm-hmm. wërs bi bi ci des nag bu fekkee ci jëmmi nit ki la bu dee maire bi ñoom danaan waaw waaw moom jigéen ñi da ko ci bëgg bala ngaa takk soxna da ngay nangam ndax man sama natt yi ma war a sama nangam yi il faut nga góorgóorlu di la wax yoo xam ne seen bopp dong la jëm intérêt bi intérêt daj ci ñoom dong lay delluwaat. Mhm. bu dee nag nit ki nga xam ne mooy jël ay responsabilité di jaar nii na day dem ci géej gi. Mhm. maam Cheikh a toogoon na ba yàgg mu ne ah doom gis naa bàmmeel yu sooy mag ñi la toogal ba yàgg mu ne ah doom gis naa bàmmeel yu sori mu ne xanaa jaaxle ngeen de mu ne ko gis naa bàmmeel yu ci ndox mi ak ak ak ak dessert bi. Mm-hmm. te loola ba mu ko wax booba ñun juddooguñu te xoolal fii muy wax ak yow waxuma la lii dee ci géej gi nga xam ne léegi lii dee ci yoonu suuf yi nag. Mm-hmm. lii dee ci yoonu suuf yi waxagu ko de am na ñuy dee ci yoonu suuf yi. am na ñuy dee géej gi ñoo xam ne ba tegewu ba tegewu ci. Mm-hmm. waaye nag bu fekkee ne xale bi nga xam ne moo am jom fas yéene liggéey bu fekkee da war a dem Espagne bayee ji sa baay am ay tool fii ci waa nga toog Ndakaaru bëgg a xaalis laggal dem sa cosaanal baay dem bay waaw waaye yow toog Ndakaaru Dakar nga xam ne fi mu nekk nii boo fa yoroon cinquante mille man fi ne dix-huit mille Touba moo ma gënal cinquante mille Ndakaaru mm-hmm. ndax fi ne Touba fi nekk nii wax dëgg yàlla mën nga fee gis kër duñu la aal sax ngay xëy dem marché occas mm-hmm. courant daanaka duñu la ko fekk ndox kenn fayu ko fi mm-hmm. la kaay joxal fukki dërëm boo xëyee ndekkee téeméer añi mille franc daanaka réere mille da nga lekk trois mille loo dafa am loo xam ne ci jëm nit ki la gis nga bët waaye xam ne lu boppam attan boo nekkee Dakar mënoo seere sa bopp demal ci sa cosaanal bàyyi la dëkk koo gis am na cosaan mu dem foofa bo tool yaa ngi nii nawet baa nii ñu dem baye ji mhm. état bi ñoom ñoo sànq sénégalais yépp ndax ñoom ñii di yor ay visa waa ñoon ñu yor ay visa yu ba di yóbbu seen ak ay ay njaboot mhm. bu si bureau dem bitim réew sajo ji fa waa ñooñu ndax seen njaboot ñoo gën njabootu Fatou Ba waa te buñ ko tegoon ci yoon pourtant maa war doon seen yaate war nekk seen patron fi ne Macky mi ci pale bi fi ne maay kilifaam fi mu ne ah, ndax man lu mu gàtt gàtt man Macky Sall fayaguma juróomi dërëm waaye man wax dëgg yàlla la koy fal ci laa bokk la koy fal ak la koy xanaa kay bul bi di bàddoo rek ñoom ñoo leen moo wër ta jënd ni nga ko jënde prix yi nga ko jaay waroo ko jënde loolu woyofal <laughs> <laughs> ci nekk léegi loolu fu muy dugg mënu ma ko fay wax muy dugg ci ñoom la jëm di hmm. ñun ñooy seen ay patron ñun ñooy seen ay njaatige hmm. ñu bëgg ñoo def ay ñoom ñoo instant bi ñun ñoo doone mbaam ñun kaw te ba jamonoy baax ñoom ay mbaam lañ ñu war a war seen gaw. Mhm. nga yow sa dépense kër boo ko joxewut Macky Sall du jóge këram ñëw jox joxe la ko Sénégal yëpp bu ñu toogoon ne fayetuñ Macky Sall Macky Sall day wàcc palais wala li mu jot a am kës mu fa mu fa si koo yéene dunde ñun ñoo di ay patriote ñoo di ay boss ñun sénégalais ñëpp nag ñoo di ay patriote ñoo di ay boss ñoom ñoo ñu yili ñoo ñoo yilif ci kaw lan ay kayit ay kayit lañ yilife foofu laa jeexale mhm. ay kayit lañ yilife xam nga lan mooy kayit yi mhm. da ngay jekki-jekki ñoo benn attaque ko ci plateau mu lay génneel ay chiffres yoo xam ne naan ay nangam milliards dina def ci nangam waaw léegi nee nañ mbënd bi dafa ci taw hmm. ndox mi xam nga lu mu wax ministre bi da ngay fen la ko wax ndox mi li tax mu ne ko da ngay fen ñoom ñoo waatoon ne ndox dootu fi taxaw léegi ñoom waxuñu dëgg dafa ne yër ne leen yéen ñi ne ndox mi dootu fi taxaw kaay leen kàcc ngeen ndox maa ngi nii am na taw boo xam ne pour nga am accès jumaay Touba ji yombut fu ne ngay tegg marché occas ñu fay xëy xam nañ li may wax bu baax a baax euh, génn foofa dem Jurbel mooy gën a yomb nga dem dem hmm. ni mel ko ndox Mhm. te bu taw bu taw yi fii yem taw daaw boo ko fi tawaatee maam di nga gis di nga gis ndox mu doy ndax ñoom xaalis ba fa mu war a dem defaa demul waaye lii li fi nekk kenn ko wax jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm. merci Satou Ba jërëjëf nañ ci vraiment intervention bi am na solo vraiment yow nag yaay nekk sunu dernier intervenant euh, de la semaine di la jaajëfal et du aussi vraiment Satou tuba waxtaan yi su nekkee yaa ngi may dégg bu ko di gëj di fi di ko fi indi ndax euh, jàngat bi aussi am na solo xëy na Euh, xaw na guddu mais tamit euh, wax ci la ci ak na ma ko waxee itam vraiment yar ak teggin bu mat sëkk ak itam neex euh, deret ci na ma ko waxee jàngat bi am na solo trop Sa baax ñoo ngi lay jaajafal di la gërëm di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi doon bokk ci waxtaan wi à travers le chat en direct Modou Diouf Modou juuf maa ngi koy nuyu Ndey Sey itam maa ngi koy nuyu Fatou Bintou baax nee na saa li nga wax lépp dëgg la ah, maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.